boo mënee yokk baat bi tuuti sëñ bi. waaw seulement Ernesto moom laa bëgg a xaw a am benn rectification rek bu ma def pour xamal que ni. Mhm. ñii nga xam ne dañ leen jotee noomay nii. Mhm. ñooñu bokkuñu ci appel à la candidature yi. Mhm. waaw foofu noonu loolu amu ci ñii di leen nommer directement parce que les directeurs di société yi defe naa ñooñu ñoom la ñooy def appel à la candidature. mais ñii gis nga sëñ bi soxna si même même directeur yooyu noonu sax. appel à la candidature boobu sax man si boppam malgré lii seen programme la bokk moom lañ ko bëgg doxalee mais man ànduma ci parce que dénkaane ka nga wóolu nañu xool ku compétent koo xam ne wóolu nañ ko ñu teg ko ci yenn direction yi ak yenn yi nga xamante ni mooy société yi man loolu laa gëm lii dañ ko waroon a def bu yàgg mais alhamdulilah li may wax kay mooy ku mel ni général Moussa Fall moomu man lenn rek laa am lu ma ciy naqari mooy li nga xamante ni dafa nar a continuer di doon gendarme euh, loolu rek moom ma metti sama àdduna waaw loolu moom lu ma metti la parce que mérité wul continuer di doon général fii ci Sénégal billaahi wallaahi taalaay parce que du nit koo xamante ne nii dafay doon nit koo xamee maanaam day dimbali sénégalais yi parce que su amoon na fi ku soxor la ci sénégalais yi mais nag j'en passe parce que euh, yàlla dinañu àtte ak moom li mu fi def ñëpp teg nañ ci seen bët maa ngi ñaan lépp lu jëm ci wàllu cré yi yàlla dal ci koob waaw loolu moom dama ko koy ñaanal bu baax beneen bi mooy que ni euh, damay wax ne parce que am na ñuy waxee ak affaire récompense euh, euh, récompense si Pape Alé Niang ou mais nit ñi nañ bàyyi seen caaxaan yi ñu nekkee lii ñu teg Pape Alé Niang fal ko ko lii du question de récompense parce que Pape Alé Niang dafa mérité fi ñu ko teg loolu mooy dëgg daf ko mérité beneen bi Pape Alé du militant wu Pastef mais dafa gis lu dul dëgg kaw di ko xeex Sénégal nag yàlla dafa dogal ne boo dee xeex lu dul dëgg toujours dañuy jàpp ne ka xeexal kooku nga faral fekk du question de far bëri na ci ay sénégalais yoo xam ne tey jii ñu ngi votel Bassirou Diomaye Faye injustice moo tax ñu votel ko kon loolu lañ ci bàyyi xel te xam ne am na loo xamante ni jëmul kër lii jëmul kër nañ dimbali sénégalais yi te yàlla rek tax waaw mag euh, li li li Diomaye def nag moom ñun ñun ñëpp kontaan nañ ci parce que bale bi sax dafa des parce que y a des duuru cas genre yooyu noonu ñoom ñëpp bale guñ leen bëri nañ bëri nañ trop. aussi maa ngi ñaan ku mel ni Serigne saa Gueye bu fekkente ne mën nañ ko def directeur soleil aussi tamit euh, alhamdulilah parce que le gars là bi fi nekkoon xaw ma yaa xam xaw ma kooku moom dafa war a jugee. mais est-ce que est-ce que il a les compétences est-ce a les pour diriger le waaw damay ñaan rek bu fekkente ne am na compétence amul mais c'est une question comme que jàpp na a diriger waaw waaw waaw waaw d' accord non li nga wax noonu mais bu dee am na compétence man damay ñaan yàlla nañ ko ko def mhm. mais moom vraiment daal euh, xam nañ ne yéen à part parce que yéen ñi rek yéen ñi nekk ci chaîne YouTube yi nii wallahi azim ni ngeen di doxalee moo gën foofu ñooñu ni ñu doon doxale mhm. te pourtant yéen lañ jàpp ne peut-être amoo leen yenn compétence yi mais li ngeen liggéey ci réew mi ñooñu liggéey un tiers bi mhm. loolu mooy dëgg parce que ñëpp gis nañ seen taxawaay bi réew mi soxlaa da ngeen taxaw taxaw ci digg bi faroo leen fii faroo leen fële mais dëgg ngeen àndaloon te loolu moo am nit ñi def nañ constat boobu. Mhm. te yàgg naa di ko wax fii nii su may woote. Mhm. mais imagine leen ñoo xamante ni soleil loolu benn benn boîte boo xamante ni c'est pour les sénégalais ñu teg fa koo xamante ni day par parloo ba mu fés ah di def lu ko neex. Mhm. ranta la ñëw ni ko maa la ko dax mais xam nga dafa am loo xamante ni dafa ñaaw. te réew mi nag yooyu yëpp dafee war a jugee te gëm naa ne dafiy jugee kon nag maa ngi ñaan tous les patriotes nañu ànd ak dal te xam ne lii li ñu defar ci réew mii nii maanaam mënul doon loo xamante ni day gaaw ne ñëpp mun taxaw xam ne dëkk bi dana changé mais mënul doon lu gaaw parce que ñii ñu fi yàq ci douze ans yi golo sax du ko yàq ci àll donc loolu munoo ñëw yenn naafiq yi mais dégg ñu naan ay dañ leen yoon yàkkamti leen ak yooyu ñun yàkkamti wuñu nañuy balee ndànka ndànka ba mu set voilà sénégalais bu nee na nga wut sa bale foo xalaat ne fii fi ñu war a bale la rek génnal annoncé ko ñu ñëw bale ko loolu mooy dëgg. Mhm. di leen jaajëfal bu baax. merci. jaajëfal ko bu baax ngeen mën a continuer ba tey ànd ak ñun 77 914 64 93 ñuy waxtaanee euh, li nga xamante moom lañ jël démb foofee ca conseil des ministres bokk ci li nga xamante moom moo di indemnisation yi nga xamante moom son excellence Bassirou Diomaye Faye jël na décision pour amal ko ci ñi nga xamante ñoo loru wala am ay mbokk yoo xamante ni nañ ci seen euh, bakkan ci euh, li nga xamante moom moo fi xewoon muy ay ñaawteef ci atum 2021 ba jàpp atum 2024 noonu la ko sàkko yoo xamante ni si nii na également di ki euh, démb ci yenn direction wu fii ci Sénégal euh, bañ ca gën a jàppandi euh, boo xamante ni moom moo di kooke di Pape Alé Niang moom la ñu daal di nommé mu nekk directeur général bu RTS kam fa daal di wutu di Racine Talla moom général Moussa Fall tamit daan nañ koy jëlee ci bopp commandement bu gendarmerie nationale ka ko fa daal di wutu di le général Martin fay moo ko daal di wutu ci mbir mu ni mel Amina am na ku nekk ci ligne bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam. gënoo delloo ziar Badara et Amina. di leen nuyu bu baax. na nga lay jaajëf di leen delloo njukkal kuréel bi. tey débat bi ci nomination démb yi la je pense euh, mhm. que nomination yi fi gën a mooy bon remplacement Moussa Fall ak euh, Papa Alioune. Mhm. Euh, RTS. dama bëgg a wax rek lenn ci Moussa Fall waa ji dañoo yàq deram yàq deram gratuitement. pour rien du pour rien te xamaluñ ko dara toog ci internet bi di sos ci wax lu dul dëgg nekk ci déroulé ji vingt quatre heures sur vingt quatre mais loolu aussi du dëgg. Mm-hmm. mais Sénégal dañu béy di yàq def comme ça di wax waa ji moo rey nit ñi quoi moo rey booy yi yu fi dee mais est-ce que ay enquête dafa am. loolu bu ñu ko bëggee xam mais dañuy annuler loi d'amnistie bi def ci ay enquêtes yu wóor yu leer waa Pastef fii comme léegi nguur gi ñoo ko yor bu ñu bëggee lu leer te bu ñu bëggee lu leer te sànq dañuy ubbi wat dossier yi mën nañ ko def. xool lan moo rey booy kan moo leen rey tëj leen prison bu nekkoon bu nekkee ñoom gëm nañ lu ñuy wax loolu la ñuy def mais mënuñu nekk fii di sonal nit ñi di jiñ waa ji di ko jiñ lépp quoi. xaw ma dafa nan lañ koy waxee tey sax ci olof à chaque fois turam la ñuy dégg Moussa Fall Moussa Fall Moussa Fall dafa wax donc mais dañu arrêté aussi xamul leen ko dara dama ngeen yàlla trop. Mhm. mais non quand même dañu arrêté loolu quoi te numéro deux am nañ ko remplacé Moussa Fall Martin Faye moo nekkoon numéro deux adjoint. Mhm, oui moo nekkoon Martin Faye mooy am mooy adjoint moo nekkoon adjoint Moussa Fall. oui donc bu nekkee Moussa Fall dafa bon est ce que c' est logique est ce que logique bi du ko remplacer ak numéro deux am. man question boobu lay posé. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. donc nit ñi nañu wax ak seen xel. Mm-hmm. bàyyi seen xol bu ñuy bu ñuy jiital quoi. xamu leen ci dara ci gendarmerie xamu leen xamu dañ koy xamul dara ci fonctionnement armée ak gendarmerie. te domaine yooyu secret moo ko téye bu ñu nekk ci mbedd bi aussi. nekk ci mbedd bi bëgg xam lépp di fay xew xale yi xale yu fi yu fi dee ñaawlu nañ ko ñëpp la nañ mais mënu nañ jël loolu yëpp teg ko ci benn deru nit mais moom mooy responsable bi mhm. te tegu teguñu ko fenn fenn fenn fenn lañ ko tegul à partir benn bor la ñuy far boo leen bëggee lu leen nekk dañ koy laaj Bassirou Diomaye Faye président Bassirou Diomaye Faye ak Sonko ñoom xam nañ peut-être kan mooy Moussa Fall dañu arrêté euh, damay dellu ci ci Pape Alé Niang man damay jeune sax may wax ci ay nit bëgguma wax ci ay nit la ko wax ci euh, Pape Alé Niang mais waa ji c'est pas du modèle journaliste du modèle wax waxuma ci jëmm ji nag peut man mi man mi di di wax sax Pape Alé a gën ci côté professionnel lay waxee mais fii da nekk di wax ay fausse information naan euh, naan mosoon na fi wax ni Boubacar Yàgg mooy directeur de la police nationale te dafa rawale ay doomam États-Unis te dara dëgg mës na sa wax aussi ne Moussa Fall moo dafa ci am benn immeuble aussi loolu ci dëgg ban rédaction la mës a Sénégal parce que daal def defal na propagande benn parti loolu dong mooy méritam de parce que jël na micro Ousmane Sonko moo ko may Dakar loolu leer na ñëpp ñëpp xam nañ ko mais kenn du ko wax. Dakar Matin site internet am boobu Ousmane Sonko moo ko moo moo ko may. Mhm. Ah, donc ay fait li may wax ni yëpp ay fait la. mënuñ ko vérifier fosalu ma ko. ay fait ñu mën a vérifier ci net bi la. yaa ngi ko daan du boo ci duggee vérifier ko. mais c'est une récompense que yéen kay seen question bi jarul ngeen koy posé récompense la mais kenn bañu ko c'est une récompense. te xeexal na Ousmane Sonko moo tax ñu jox ko poste bi mais ay mérite moom bu ko fi kenn wax. da nga jàpp que ni ko mérite euh, wul nekk le DG de la RTS. ah baal ma excuse-moi dama kiiwul déggu bu baax. man da nga jàpp kon yow euh, euh, moom mérite wul nekk le directeur général de la RTS. mais ngeen baal ma nag mérite wu ko loolu dëgg. si lan la sukkandiku ba nii mérite wu ko c'est important. mérite wu ko c'est clair nag. nekku ni dama ko ignané wala parce que xeex bon à un moment donné xeexal na gars yi aussi Pastef la xeexal mais pas peuple bi nag mhm. maa ngi dégg soxna Amina naan dafa xeexal peuple bi Pastef la xeexal te Pastef du peuple Sénégal la en fait léegi pourquoi nga ni xeexalul peuple sénégalais aussi Pastef la xeexal euh, pourquoi nga ni xeexalul euh, comment comment dire ma ni pourquoi ngeen xeexalu euh, peuple sénégalais parce que euh, Amina bi ñu wax loolu euh, que ni xëy na moom bi mu doon dénoncé je dis pas que ni lépp lépp ci loolu la concentré woon mais ñàkkul doon na wax loo xamante ni si c'est pour l'intérêt général pour l'intérêt de la population sénégalaise. waaw mais parce que loolu ça arrange Pastef. est-ce que du pas coïncidence aussi. dégg est-ce que mës nga dégg une question sax est wax benn affaire buy déranger waa Pastef man personnellement mosuma ko dégg est ce que mos ngeen ko dégg ci ay live am wax benn affaire boo xam ne day dénoncer li xaw ci Pastef wala critiquer gars yi wala critiquer Ousmane Sonko man foofu lay waxee donc nit ñi aussi nañu bàyyi quoi bu ñu la bañee rek ñoom dañ lay bonal quoi mais yaa gën a bon waxuma ni fa Alioune une fois encore une fois waxuma ci personne bi. waxuma wa lu may wax nii waxuma ko en tant que nit ku mu doon respecté naa jëmm wax ci métier bi muy def. ak mhm. loolu du empêcher aussi. Mhm. naa succès ci fonction bu ñu ko kii ci fonction bu ñu ko demee. tonton Ibrahima benn benn question rek pour peut Euh, euh, pardon est-ce que jàpp nga ne yow réellement RTS en tant que télévision nationale ni mu doon doxee loolu la waroon doxee en fait c'est juste une question. Euh, non non non non léegi moom wax dëgg yàlla RTS këru Sénégal yëpp la. non avant avant laa wax quoi. donc damay ñaawlu aussi rajo li mu doon doxee ci ma tegtal. d'accord ko bi. loolu moom waratul am Sénégal. d'accord ko ubbi ñëpp foofu ko ci yoon. Mhm. di li di ñaanal ñëpp ñu nommé aussi ndam ci seen fonction ñu leen jox. Mhm. di leen ñaanal ñëpp ndam parce que nekkul ñaari nomination yi xam naa ñoo gën a fës am na force CDC bëri na daal ay structure yu ñu nommé d'abord dañ leen di ñaanal nit aussi dañ leen di yéenal damay di yéenal jàmm quoi te damay wax rek ci ma xalaat di leen euh, remercier. merci ngeen baal ma encore une fois bu ma. jël naa temps bi quoi merci jërëjëf. merci beaucoup merci euh, jërëjëf. ngeen continuer ba tey ànd ak ñoom ci 77 914 64 93. mu mel ni Amina ba tey gis nga seen yi bu ñu jàppee que ni xëy na euh, lu logique la ñu dañuy jàpp que ni xëy na tamit récompense la. Mhm. parce que démbal yaa ngi dégg am ñu naan partage du gâteau am ñoo xam ne dañuy jàpp que ni mérite la yu ni mel. Mhm. gis nga partage du gâteau moom bu fekkee dafa dem ba commencé am si réew mi nañ jàpp ni ngu askan bi ci boppam ñooy demaat ba contrat nguur gi. Hmm. parce que loolu lañ doon xeex ci nguuru euh, euh, euh, Macky Sall. donc tey jii bu ñu ba jàpp ni tey jii ñoom Ousmane Sonko ñoom son excellence Bassirou Diomaye Faye dañoo def à l'amiable kii moom ma doon xeexal kii laay fal defee wuñ ko noonu. mais pour dire vrai la scène ci xeex bi ba léegi kenn gisul xam nga ñun xas na xëy na direction générale ñoom ñu jor ko. ñu si mel ni ñi nga xam ñoo bokkoon ci

main était faite ko tamit ci parce que dama bokk ki wala kii moom a xeexal donc hmm. bu fekkante ne dañ naan nit xeex na wala xeexul je l'ai une fois dit euh, ci euh, ci samay propos maa ngi naan euh, ki nga xamante ni moom moo di Pape Alé Niang damay utiliser saa su nekk dafa mel am na ko ne ci ligne bi salaamaaleykum asalaamaaleykum maaleykum salaam sëñ bi ñoo ngi lay ziar soxna Amina ñu ngi lay ziar bu baax a baax ja maa ngi lay jaajëfal yaa ngi en direct di ziar waaw ah, di ziar Seydina Aliou maa lay fay sëñ Xaadim. di ziar waa 2A yëpp di ziar soxna am jaar ak soxna maa ngi ziar ñëpp daal. <laughs> Ah, di am mbégte bu baax a baax si yéen di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. Mhm, di leen ñaanal bu baax a baax tey sàkku seen ñaan. Mhm. waaw di participer si émission bi. Mhm. bismillah waaw comme ni ko waxee maanaam euh, li ma njëkk a participer mooy appel appel à candidat bi nga xam ne moom la moom la Diomaye wax. loolu mhm. pour man wax wax waxu politicien la parce mhm. que nit ki bu fekkee dañ laa fal pour nga diriger réew sa premier gouvernement faaw nga fal nit ñi nga wóolu faaw aussi nga fal ñi nga nit ñi nga maanaam am nga solo confiance faaw aussi nga fal ñi nga xam nit ñi nga xam aussi maanaam da leen a xam rawat na yenn postes yi yu yu mel ne ministre yu mel ne ay DG lu mel ne aussi ay général yu mel ne aussi ay euh, ay ay général fa aussi nga fal ñi nga xam maanaam da nga leen a xam waaw comme Diomaye kon Diomaye maanaam ñi nga xam daf leen a fal lépp yëpp daf leen a xam te yëpp dafa am su ñoom yaakaar pour a liggéey Sénégal hmm. deuxièmement bi maanaam ko ba 2012 xam nañ ko si nguuru Abdoulaye Wade li nga xam ne liggéey na ko 2012 ba 2024 si nguuru euh, Macky Sall loote bi ñëpp xam nañ ko mais nag Pape Alé li nga xam ne si moom la liggéey si euh, nguuru Abdoulaye Wade di ko liggéey si nguur si nguuru euh, Macky Sall si opposition bi na fexe ba continuer a kenn du war a ne carrément ba ñëpp naw ko waaw parce que lépp taxaw wax ko lépp loo wax ko mais nag bu moo tax mu fal ko directeur RTS lu jar a xool la quoi man na fu mu toll nii mën a wax dara parce la moo tax mën a wax dara Jomaay dafa dafa nekk entraîneur def classement moo moo moo doog commencé marché bi demagul fenn dama toog di xaar ba xam ñi ñi mu fal dinañ dinañ ko liggéey waaw waaw wala déet et puis Pape Alé Niang mi mi ñu jiite ci RTS nañu dimbali ba maanaam lu fi bu fi amati te moom aussi li xam ne aussi moom la ñu liggéey nga fexe ba continuer ko mais aussi bu ñu ko fal directeur mu toog noppi yaa may dégg baax. Mhm. parce que Pape Alé Niang liggéey ñëpp a ko dem seetaan ñëpp ñëpp ñëpp ko dem déglu waaw lépp lu mu saa xew day wax. lépp dina am ak aussi day wax mais fan leen ko directeur aussi bu mu tarul napp jàpp ñàmburam na li mu dem liggéey na ko na ko continuer li mu ne wax wax aussi na ko continuer lépp loo xam ne maanaam da aussi ko da ko na bu mu ne fan leen fan leen ma rek damay tëj sama laam yi waaw mhm. léegi nag jomaay ko jomaay ba xam fan leen ko matagul deux mois mais nan toog seetaan aussi moo ndaje mhm. bu ñu defee résultat alhamdulilah bu defar résultat la ñu ñu doog a carrément nag foo woon parce que Sénégal ñun ñëpp ko bokk quoi bu fekkee ne Diomaye dafa liggéey Sénégal su avantage lay doon ñëpp bu fekkee aussi liggéey Sénégal tamit cinq ans ñu ko fay yàggul mais Pape Alé Niang leen dong laa koy ñaan doomu aadama loolu daal ak sa mel ni ak sa liggéey bu la ko bu dara tax nga di ko changé mhm. ñëpp xam nañ ne carrément Macky Sall ki ko njëkk a invité 31 euh, décembre 31 euh, décembre 2011 Pape Alé Niang la 2STV bi kon lu fal Macky Sall Pape Alé Niang si la bokk mais comme ni ko Soxna Amina waxee rek Soxna ko péng am ne ko doon dëgg moom moo ko doon wax lépp loo xam mm-hmm. jafee waaw mais man mais man man sa bopp bu fekkoon man maay Pape Alé Niang bu ma bëggoon bu ma bëggee fal DTS ko nangu parce que lu mu doon wax si chaîne bi bi dem international daf ko mm-hmm. si chaîne ba yooyu di kàcc kàcc du du daf ko fay def loolu xalaatu ko waaye bu defee midi du ko fa fekk. Mm-hmm. nit ki def sa liggéey bi nga maanaam da am ba ñëpp fonk la fi lu mu métti métti na nga ko téye lu mu neex na tamit na ko téye Pape Alé Niang maanaam da doon xeexal Sénégal di xeexal. direct ngir ngir population Sénégal mais nag ah, ah, Barra ba xam fan ko RTS léegi Barra léegi César moo tax si ndaje. nga xool ba xam boobu nan lay dox ak ak ak ak ak bu fekkee ne Diomaye daa bëgg tëj mu fal mu fal ko directeur RTS loolu si kanam tuuti César moo tax si ndaje dara baax di leen ziar di leen jaajëfal di ñaanal soxna Amina di leen ñaanal yéen ñëpp. toog fi nga tey merci ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, man benn question rek laa bëgg ñu koy laaj à chaque fois bu ñu bu bu fekkente ne si nomination yi bu ñu nee RTS jëlee nañ Fara Sentale indi fa Pape Alé Niang question bu ñu wax est-ce qu'il a bu ñu nee si. il a les je pense qu'il mérite sa poste. bu fekkente ne dañ ne jële nañ fi euh, général Moussa Fall fi Martin Faye est-ce qu'il a les compétences mën na nañ ko bàyyi mu jouer nañ ko bàyyi mu doxal mais pas ñu bëgg koo jël ci kii Pastef la bokkoon wala bokkuloon Pastef wala c'est que c'est-à-dire. Mm-hmm. bu fekkee dañuy xool ci foofu rek dinañu juum am na ñu bari ñoo xamante ne dañ doon xeexal Sonko te nekkuñu Pastef. Mm-hmm. am na ñu ci bari ñoo xamante ni euh, xeex nañu ba dugg ci kaso te. aram sax mosuñoo toog ci Pastef fa la ñu benn bokk ci regroupement mhm. bu fekkente ni pour euh, vérifier mais dire Pape Alé Niang tey ku demaat ci page Facebook am di nga gis les dénonciations qu'il avait fait mhm. en ces moments de de de en ces de manifestation et